mbokki internet yi dal leen ak jàmm ginnaaw bi nga xamante ni njiitu réew mi président de la république Macky Sall daal dina yëkkati ay kàddoom ak taskatu xibaar yam doon jàkkaarlool ci ab interview ginnaaw média français boobee nga xamante mu ngay wuyoo ci turu express njiitu mi président de la république Macky Sall di fay yëkkati ab kàddoom ci ab interview di leen xamal nag daal di ne constitution bi may na ko mu daal di présenté wu am ñetteelu mandat atum 2016 googee nga xamante ne nag koy def jàppale ni sama mandat bima ma won woon juróom-ñaari at ca waxtu boobee loolee bokul won, ci li nga xamante ne nag moom la ñu daal di tenir en compte ginnaaw bi nga xamante ne na mandat di amal ndaxte nag su fekkente ne ci wàllum yoon rek loolee daal nañu koy lijjante ak conseil constitutionnel te waxtu boobee nag jàppale ni jàmm gën troisième mandat nekk ab kuréel gu juddu ñoom nag ñu nga yëkkati seenub kàddu di ko mettre en garde tanankaan njiitu réew mi del tul ginnaaw ci kàddu yi nga ni nag daal di nga koy yëkkati ndaxte ab troisième mandat ak jamono ji nii mu mel ni nga daal koy wax lépp loo xamante ne nag jamono ji rek mënees naa dal askanu ko Sénégal wala rek mu nekk ay mbii jóg mbaaloo yoo xamante ne nag mënees na ciy juddu lu mu ci mën a doon yow yaay nekk responsable bi ginnaaw kàddu yi nga xamante ne nag waa kuréel gi woowee seen bopp jàmm gën troisième mandat ñoom ñoo ko daal di yëkkati nege ni tey ci suba di dànkaafu ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi la république Macky Sall loolee daal di nekk nag ay bi ñuy woowee express di xam ne nag daal di ne moom mën na am ñetteelu ko mandat bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne nag moom moo di référendum bi fi jàll ci atum 2016 ca waxtu boobee déclaration boobee collectif bi daal di def ne jàmm gën troisième mandat di naqarlu bu baax a kàddu ya nga xamante ne njiitu réew mi daal dina ko yëkkati tey xamle tamit daal ne lépp loo xamante ne juddoo na ci ci wàllum fitna du kenn moo nekk responsable bi ku dul njiitu réew mi président de la république Macky